Sud Matin. 6h45 minutes, bienvenue dans cette première édition. Voici les titres. Le Sénégal tient son nouveau gouvernement composé de 38 ministres dont 8 femmes et 8 jeunes. Leur parcours et leur profil à suivre dans nos éditions. Dans cette édition, gouvernement de combat et d'attaque a lancé le tout euh, Premier ministre Amadou Ba avec des départs et des retours. Les détails également dans cette édition. Pendant ce temps, à quelques jours de la rentrée des classes, le syndicat national de l'éducation physique et la rentrée, la reprise des cours et réclamant entre autres monte des chargés de cours en EPSA sur l'actualité internationale euh, qui mettra fin à euh, ce premier rendez-vous d'information. Hassan Choun assure la partie technique tout de suite le développement.

mais les ministres qui en activité sont, ont un niveau de, de, de compréhension de la gestion étatique qui peuvent leur permettre d'aller très très vite. Ce gouvernement compte 38 euh, personnes, 38 euh, euh, ministres. Et vous verrez la nouveauté qu'il y a des ministres auprès d'autres ministres. Et cela traduit aussi les orientations du président de la République. Un ministre délégué, un ministre auprès du ministre de l'assainissement, chargé de l'assainissement, pour s'occuper des inondations et de la prévention de ces inondations. Il s'agira d'un secteur extrêmement important que le gouvernement devra adresser dans les prochains jours. Un, gouverne, un, un, un ministère euh, au, de, des Sénégalais de l'extérieur, où on a mis une femme qui est connue, qui engagée et qui est très brave. Au total, on a huit femmes dans le gouvernement. On a aussi huit jeunes, mais des hommes et des femmes d'expérience. Vous verrez une femme au ministère de l'économie, c'est une première dans notre pays, qui va s'occuper de l'économie, de la coopération euh, internationale et du plan. Et cette femme va travailler en binôme avec le ministre chargé des Finances et du Budget. Au total, il s'agira d'un gouvernement de combat. Il s'agira d'un gouvernement immédiatement opérationnel, mais surtout d'un gouvernement de terrain, c'est-à-dire proche des préoccupations des populations.

santé. Le chef de l'État a choisi de nouveaux profils pour une efficacité optimale, a déclaré le Premier ministre Amadouba. Parmi les nominations, Oulimata Sarr devient ministre d'économie, du plan et de la coopération. Elle fut la directrice régionale du bureau d'ONU Femmes à Dakar, entité mandatée par l'ONU pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes agissant en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Parmi les nominations toujours, Dr Annette Sekendiaï ministre auprès des ministères des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Elle était la directrice nationale de la pharmacie nationale d'approvisionnement, Dr Fatou Diané, devient ministre de la femme, de la famille, de la protection des enfants. Euh, Fatou Diané fut la coordinatrice nationale du Promise, programme de développement de la microfinance islamique au Sénégal depuis mars Pape Malik Nour, ministre de la Jeunesse, de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi, est un militant de l'Alliance pour la République depuis 2008. Sur le plan politique, Pape Malik Nour a été coordinateur national adjoint et porte-parole du mouvement des élèves et étudiants républicains. Il est aussi un responsable actif de la coordination des jeunesses républicaines Cogère. Béram Faye, quant à lui, il est nommé ministre auprès du ministre de l'Intérieur chargé de la sécurité de proximité et de la protection civile. Il était auparavant le directeur général de l'agence d'assistance à la sécurité de proximité installée. Il a pris fonction depuis le 13 mai Quant au nouveau ministre de la fonction publique nommé Galoba, il est un responsable apériste, maire de Mbaké, directeur général de la SOGIP. Parmi les nouvelles nominations, un journaliste et analyste politique. Le journaliste politologue est pourtant connu pour ses positions de principe, ses analyses pas très souvent en faveur des actes posés par le chef de l'État Macky Sall. Il s'agit de Yoroja, nommé ministre porte-parole et coordonnateur de la communication à la présidence de la République. Quant à la dernière nomination, et en combat Issa il se nomme Nouveau profil, il du ministre de l'eau et de l'assainissement chargé de la prévention des inondations. L'homme reste très peu connu du public. Aïssatou Gaye merci Amadou Ba nouveau premier ministre il succède respectivement à ce poste Abdoul Mbaye Aminata Touré et Boun Abdallah Dionne sont responsables à l'APR et étaient ministre de l'économie et des finances à deux reprises avant d'occuper le poste de ministre des affaires étrangères Khady Sène dresse le portrait du nouveau premier ministre À 61 ans, l'économiste Amadou Ba devient Premier ministre du Sénégal après six ans passés à la tête du ministère de l'Économie et des Finances de 2013 à 2019 et un an au ministère des Affaires étrangères entre 2019 et 2020. Un parcours très riche en économie, Amadou a décroché une maîtrise en sciences économiques, option gestion des entreprises et un brevet de l'ENAM en 1998. Il a occupé plusieurs postes à la Direction générale des impôts et des domaines avant d'être le directeur général en 2006. Sous sa direction est mis en œuvre un nouveau code général des impôts entré en vigueur en 2013. C'est sous son magistère au ministère de l'économie qu'il a dirigé la délégation du Sénégal à Paris pour vendre le plan Sénégal émergent et trouver des investissements pour les différents projets. Membre de l'APR, responsable du parti aux Parcelles Assainies, Amadouba n'a pas été investi lors des élections locales. Il a été écarté au profit de Diouf Sarr, même scénario lors des législatives où à Dakar, ce sont les alliés de Besti. Malgré tout cela, il est resté mobilisé et engagé Fidèle au président, il se retrouve aujourd'hui à la tête du gouvernement. L'économiste arrive dans un contexte économique chargé, marqué par l'inflation. Il devra relever ce défi clairement identifié par le chef de l'État comme étant l'une des priorités de l'heure. À la suite de la nomination de la Ba, certains de nos compatriotes approuvent ce choix et estiment que c'est le bon profil pour diriger le gouvernement. Un micro-trottoir réalisé par euh, Amadouba, le nouveau Premier ministre du Sénégal, un choix de profil qui apparemment rassure. Voici quelques réactions Pour euh, la nomination de M. Amadouba, c'est le bon fait, Amadouba, il a eu à faire ses preuves. Je pense qu'il sera à euh, des attentes Voilà. Pourra-t-il relever les défis d'ici aux élections présidentielles prévues en 2024

Mariama Diarra, merci. Retour dans le gouvernement d'Ismaïla Madior Fall. Il est le tout nouveau ministre de la Justice, un poste qu'il a d'ailleurs occupé en Sa nomination intervient alors que le débat sur le troisième euh, mandat de Macky Sall se pose avec acuité pour le professeur Moussa Diaw. Le retour de ce dernier obéit à une logique de défendre la position de, du chef de l'État concernant une éventuelle candidature Professeur Moussa Diaw, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'UGB avec Bayomar Gueye. Oui, on se demande est-ce que n'est pas dans une logique de troisième mandat, puisque euh, son avis semblait être changé. Il, semblait, euh, de, principe, en principe, euh, le président ne peut pas faire un, troisième mandat, alors qu'au début il était, euh, il était Euh, radicale sur le fait qu'il y a euh, un verrouillage. On ne peut pas, faire troisième mandat. En troisième mandat, il y a deux mandats et la, la Constitution est claire là-dessus. Euh, bon, maintenant, son retour est pour faire quoi euh, Est-ce que ce n'est pas dans une logique de défendre la position du président de la République qui va peut-être l'annoncer plus tard Et on sait bien euh, tout le dispositif qui est déjà institutionnel, le Conseil constitutionnel qui a un nouveau président et qui est dans cette logique de, de, de, de, de soutien du président de la République. Et puis avec euh, le retour d'Ismaël, est-ce que ce n'est pas là euh, tout un dispositif euh, juridique installé euh, pour, euh, pour valider euh, un troisième mandat Mais on n'est pas encore là. on attend de toute façon que cela soit bien précisé. Mais dans tous les cas, il euh, n'y euh, a pas beaucoup de changement C'est-à-dire, il euh, n'y a pas un bouleversement et il n'y a pas une nouveauté. Et on pensait d'ailleurs à un gouvernement resserré, mais tel n'a pas été le cas. Et on nous dit que c'est un gouvernement, comme je disais tout à l'heure, de combat, peut-être contre l'adversité, c'est-à-dire les inondations ou contre Euh, contre euh, un certain nombre de, de problèmes euh, qui se posent au pouvoir d'achat, etc. mais en tout cas, il faudra voir ce que ça va produire. Et puis du niveau ministère de l'Intérieur, on a adjoint euh, un ministre qui sera chargé certainement de la sécurité, qui c'est celui qui a formé, il a des responsabilités sur la formation des AFP. et euh, son rôle aussi euh, dans ce qui s'est passé, euh, dans la formation aussi de, de certains agents de, de, sécurité. Donc il faut voir à quelle fin ce, ce doublement de fonctions autour du ministère de, au ministère de l'Intérieur. Un plus bref, euh, retenir venant de trouver la mort et 726 autres blessés dans des accidents survenus à Touba entre, route, entre les routes reliant euh, cette ville au reste du pays entre samedi 10 et vendredi 16 septembre, euh, selon la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, euh, selon le porte-parole de la Brigade nationale Les sapeurs-pompiers, neuf des personnes décédées ont été victimes d'accidents dans lesquels ont été impliqués des motos Jakarta, rappelant que l'année dernière, les accidents survenus durant le Magal avaient fait 10 morts et blessés. Ubbi grève Tey, c'est le nouveau slogan que lance le syndicat national de l'éducation physique sportive. Le SNEPS envisage de perturber la rentrée si le gouvernement ne prend pas charge leurs revendications. Le, CN, le SNEPS exige entre autres la formation diplômante des chargés des cours en EPS. Khalifa Babakar Ndiaye, le secrétaire général de l'Association nationale des enseignants de l'éducation physique, au micro de Mame Diarra de Silva. Aujourd'hui, je porte la voix de tous les maîtres d'éducation physique du Sénégal pour dénoncer dans le corps des PSMG. Faut-il le rappeler, c'est la plus vieille doléance syndicale car Et à la surprise générale, nous avons constaté qu'au sortir des dernières négociations entre les syndicats classiques et le gouvernement du Sénégal, il en est ressorti qu'il nous est demandé revenir donner encore à nouveau les mêmes enseignements apprentissages que nous avons toujours donnés dans les lycées et collèges. Ceci reste non seulement en ce sens qu'il est inadmissible que le seul corps dans la fonction publique qui n'ait pas de plan de carrière soit aussi délaissé par les autorités compétentes. C'est en ce sens que nous avons lancé ces derniers jours des pistes de réflexion avec les services étatiques, nonobstant du fait que notre coloration à faire valoir le slogan « Ubitei grève taille ». Et pour cela, nous sommes dans les dispositions de boycotter l'ensemble des activités sportives dans les lycées et collèges, il n'y aura pas d'interclasse, il n'y aura pas d'interétablissement et le sport scolaire sera carrément boycotté. Et ça, c'est la première étape de notre plan d'action. Et si maintenant l'État du Sénégal ne nous montre pas véritablement de bonnes dispositions pour solutionner ce qu'il avait lui-même consigné dans les accords depuis 2004, nous passerons à une vitesse supérieure afin que nul n'en ignore.

version la version wolof de Sud Matin première édition merci à Sanchoun pour l'appui technique. juróom-ñaari waxtu ci suba moo jot fii ci Sud FM xabaar yi li ci gën a fës. Sénégal am na gouvernement bu bees gouvernement boobee nag fanweer ak juróom-ñett ci ay ministre la daal di am ci ñooñee nag ñu mun cee lim juróom-ñetti jigéen ak juróom-ñetti ndaw ñoom nag kii di ay Aïssatou Gueye Ba dina ànd ak ñun xamle ñook euh, ministre yooyee ak itamit seeni jaar-jaar gouvernement bu bees bi nag du am temps wu noppalu ndax liggéey rek moo leen tax a jóg loolee di kàddu yi nga xamante ne moom la euh, premier ministre bu bees bi daal di yëkkati di Amadou Ba dinañu ànd moom euh, ci biir euh, xabaar yi jamono jooje nag euh, jàppale ni ku moytuwul nag daañu am ubbi tey grève tey syndicat bi nga xamante ne moo ëmb jàngalekat yi nekk ci wàllum tàggat yaram bi ñoom nag ñoo ni waxee nee ñu li ñu bëgg mooy ñu daal di leen tàggat tàggat bu war ci wàllum EPS ñoom itamit daañu lu leen dégg ci biir xabaar yi lii bañ ci ñàmbasa yeneen xabaar daa ñu jeexal ak wàllum xabaar yi gën a fës ci ay bés bi ñu génn ak Marie Rosalie Ndiaye Assane Thioune technique bi daleen ak jàmm. moo ne ci kàddu gi ma leen di jaajëfal bu baax a baax ci ànd bi ngeen di ànd ak rajo Sud FM di fi taataane xabaar xabaar yi ni ma leen ko waxee ca bopp ba noonee la ñu koy dooxee Sénégal am na gouvernement bu yees bu bees tàkk ni ki démb lañ ko daal di taxawal boobule gouvernement nag jàppale ni fanweer ak juróom-ñett ci ay ministre la daal di am ñooñe nag ñu mën cee lim juróom-ñetti jigéen naka noonu juróom-ñetti ndaw bu ñu sukkandikoo nag ci jëwriñ ji ñu ki nga xamante ne moom mooy premier ministre bi. di Amadou Ba moom it ni ki démb lañ ko daal di eh, tabb nee na gouvernement bii de eh, du am temps wu nooyal ndax liggéey moo ko tax a jóg te am na ay liggéey eh, gaaw yoo xam ay liggéey yoo xamante ne war nañ cee taxaw ni mu gën a gaawee moom Amadou Ba ni ki démb la yi le kàddu dañu koy teewlu. mu tànn ay góor ak ay jigéen ñoo xam ne am nañ expérience ay xale am na ci dinañ toll ci juróom-ñett ay am na ci dinañ ci juróom-ñett mais li ñu gis mooy. jox nañ leen ci aussi cër yu am doole ndax amoon nañ ci ministre des affaires étrangères mais am nañu léegi ministre de l'économie boo xam ne moom mooy toppatoo koom-koomu réew mi di doon koo xamante ni doomu Sénégal la di eh, ku ku jigéen loolu mooy li nga xam ni président def na ko incha allah passation de service yi dina commencer altine ndax niñ koy waxee ci école yi mooy li président bëgg mooy ubbi tey jàngi tey gouvernement bi it incha allah en début de semaine passation de services yi nañ commencé décret yi nga xam ne ñoom ñooy séddale fon euh, répartir services yi pare na incha allah ci biir semaine bi ministre yëpp dinañu opérationnel comme ça bu président defee conseil des ministres bu njëkk bi ba gën ñoo leeral li nga xam ne noonu la bëgg liggéey bi doxee semaine ba ca topp gouvernement bi jublu ci préoccupation yi nga xam ni moom la sénégalais yi am balaa may fàtte am na benn ministère boo xam ni ñu ngi ko def ci ministère de l'hydraulique et assainissement boo xam ni ministre délégué la tuddewuñ ko nag ministre délégué dañ ko jox compétence su ministre mu nekk ci biir di toppatoo mbënn bi di ko def prévention am na it au niveau du ministère de l'intérieur beneen ministre boo xam ni sécurité de proximité ak protection kooku dina mën a liggéey ak ministre bi nga xam ne moom mooy toppatoo aussi affaire u mbënn bi pour wane ni li yitteel président mooy lépp loo xam ne dafay jàppale askan wi lépp loo xam ne dafay aar askan wi dafa laaj gouvernement bi ñu taxaw ci nu mu gën a gaawee bokkul nag ak ministère yi nga xam ni amoon na fi démb ak barki démb ci wàllu jeunesse gis ngeen ni aussi ministère boobu dañ ko gën a dooleel dolli ci entrepreneuriat cela me semble être extrêmement important ndax gis ngeen outils yu bari yi nga xam ni président def na ko yu bëree bëri incha allah ci décret de répartition président dina xoolaat loolu yëpp pour ñu mën a fexe ba outils yooyu nga xam ni def na ko te li ko yitteel mooy mu jariñ askan bi ko outils yooyu yëpp mën a am une efficacité optimale Amadou baax di jëwriñ ju njëkk ji eh, gannaaw nag bañ ko falee ni ki démb eh, ci nag la ñu daal di taxawal nag gouvernement bu bees bi gouvernement bu bees boobee nag ci sax la doon yëyyaa bi noonu eh, kon jàppale ni moom amadu Ba ba ko jiitu réew mi fale nag ba noppi daal nañ ci teg nag daal di fal ay ministre yu bees ministre yooyu nag gis nañ ci ñu bëri ñoo xamante ne bees nañu ci suñu kanam am ñoo xamante ne dañoo daal di dellu siwaat ñoom ñëpp nag li leen tax a jóg mooy daal fexe ba daal di euh, sàmm li nga xamante ne moom mooy euh, moom la askanu Sénégal daal di bëgg dox ci seen euh, bëgg bëgg kon loolee ministre yooyee ñan lañu ak lan mooy seen parcours fan mooy seen jaar-jaar kii di Aïssatou Gueye Ba mu ngi ñu ci jéem a indil ay tontu. Sénégal daal am. gouvernement bu yees gouvernement boobe tollu ci fanweer ak juróom ñetti ministre yu yees ministre yooyee sax ñu nemmeeku ci ay xar kanam yu bees ku ci mel ni kii di Oulimata Sarr moom ñu dal koy euh, tabb mu nekk ministre de l'économie du plan et de la coopération moom nag jiite woon lii di bureau ONU Femmes fii ci Ndakaaru ànd ceeg ONU ngir daal di toppatoo lépp lu jëm ci wàllum ak ak yelleefu soxna yi kii ci topp di docteur Annette Seck Ndiaye docteur Annette Seck Ndiaye ñu dal koy fal ngir mu dal di gunge ministre bi ñu dénk wàllum ci réew ngir mu dal koy gunge ci liggéeyam docteur Annette Seck Ndiaye nag moom jiite woon lii di PNA pharmacie nationale d'approvisionnement moom nag ñu nemmeeku ko woon mu nekk nit ku xarañ loolu jëm ci wàllum politique nekkoon ci wetu kii di njiitu réew Macky Sall ci élection locale yi ñu génn moom nag jiite woon tête de liste départementale Euh, coalition benn Bokk Yaakaar foofe ca Sédhiou ba amoon fa ndam euh, keneen ki li docteur Fatou ñu daal koy fal ministre de la femme de la famille de la protection des enfants docteur Fatou Diamé nag moo doon euh, coordonnatrice nationale bu promise du programme développement de la microfinance islamique fii ci réew Sénégal kuréel googe mu nekk ci mars 2021 ba tey keneen ku daal di bokk ci gouvernement bu yees bi mooy pap Malick Ndour nekk ministre bi ñu dénk wàllum jeunesse moom nag di Pape malik Ndour ma nga bokkoon ci APR di Alliance pour la République 2008 ba tey Pape Malick Ndour nekkoon itam coordonnateur jeunesse républicaine ñu koy wax COJER ki ci topp di Birame Faye moomee nekk ministre bi war a dimbali ministre bi ñu dénk wàllum biir réew mi jëm nag ci xool naka la ñuy def ngir sàmm kaaraange askan wi moom Birame Faye nekkoon njiital ASP di agence d'assistance à la sécurité de proximité bi nga xamante ne nag tabboon nañ ko fa fukki fa ak ñett ci weeru mai atum 2019 Gallo Ba moom di ministre bi ñu dénk wàllum fonction publique mu nekk responsable APR maire bu Mbacké waaye nekkoon itam directeur SOGIP waaye ñu nemmeeku ne itam teewaloon na kii di njiitu réew Macky Sall foofee ca Mbacké ci élection législative yee ñu génn ki ci des di Yoro Dia moom ñu fal ko ministre porte-parole ak coordonnateur communication foofe ca présidence de la république moom nag ñu xam ko mu nekk du xibaar analyste politique ñu xamee ko ci nit koo xamante ne taskatu xibaar bu ànd ak pas-pas ak ca des di Yankhoba Issa Diop moom nag di ministre bi nga xamante ne mooy gunge ministre de l'eau et la l'assainissement di sëriñ jigéey boobee kii di Yankhoba Issa Diop nag mu mel ni demam ak dikkam dese naa leer ci bopp askan wi fësul noonu ci langu politique bi ay Aïssatou Gueye Ba ñu koy jaajëfal bu baax Amadou Ba di premier ministre bu bees bi moom nag mu ngi wuutu eh, ci bile toogu kii di Abdoul Mbaye Aminata Touré ak Boun Abdallah Dionne eh, moom mi nga xamante ne nag nekk nekk na responsable foofee eh, ci APR moom nag nekkoon fii ancien ministre bu économie et finance kon ki nga xamante ne moom mooy Amadou Ba Khady Sène kan mooy Amadou Ba. ci bi mu amee juróom fukki at ak benn la économiste bi di Amadou Ba nekk premier ministre du Sénégal gannaaw bu mu amee juróom benni at ci bopp ministère de l' économie et des finances ci atum 2013 jàpp 2019 ak benn at ci ministère des affaires étrangères ci atum 2019 ba 2020 mu am parcours bu riche ci wàllu koom. du Ba daal di am maîtrise ci science économique option gestion des entreprises ak brevet ca ENAM ci atum 19 daal dinay occupé nag post yu bari ca direction générale impôt et des domaines laata mu fay nekk directeur général ci atum 2006 ci ba mu fa nekkee directeur général sax ci la daal di teg code général des impôts bi nga xamante ne ñu ngi ko doxal ci atum 2013 ci ba mu nekkee tamit ci boppu ministère de l'économie ci la daal di diriger délégation Sénégal ci Paris ngir rek jaay li di plan Sénégal émergent daal di wut ay investissement ngir ñu mën a daal di doxal projet yi membre la ci APR nekk responsable parti bi ci parcelle Assainies Amadou Ba kenn investiru ko woon ci élection locale yi ñu génn dañ ko daal di écarter daal di jël Diouf saar mu nekk candidat Dakar ñu gisaat même scénario ci élection législative yi fi nga xamante ne ci ndakaaru yee bennoo yi lañu rek daal di investir loolu yëpp am taxul Amadou Ba daal di toog ci parti bi engagé wu mobilisé fidèle ci président Macky Sall tey jii ñu daal di koy teg ci bopp gouvernement bi. économiste bi di ñëw ci waxtu bi nga xamante ne naka dëkk bi métti na lépp yokk mu daal di war a rek relever défi yi nga xamante ni njiitu réew mi tànn na ko bu baax a baax te mu soxal loolu askan wi. Khady Sène gannaaw nag ba nga xamante ne euh, fal nañu kii di Amadou baax euh, mu nekk premier ministre bu euh, Sénégal ñenn ci suñu compatriotes yi di doomu Sénégal yi gis nañ ni loolee choix bu baax la doon na profil bu baax ngir rek daal di jiite gouvernement bu bees bi kii di Adja Mariama Diarra moo ñu amal bile micro trottoir. Amadou Ba di njiitu bu bees bu Sénégal doon na koo xamante ni Sénégal yu bëri. seen xel dal na ci moom ci doxalinam ak ci taxawaayam ci gouvernement bu bees bi ci Sénégal ñu demoon nag taataan xalaatu sénégalais yi ci li nga xamante ni moo di tabb buñ ko tabb ci njiitalu gouvernement bu bees bile. waaw euh, Amadou Ba le fait que ñu nommé ko premier ministre am nañu yaakaar que ni que liggéey bi euh, dina gën a ñoŋ comme niñ koy faral di waxee que vraiment dina apporter beaucoup de solutions euh, au problème des sénégalais lu ci jëm si dund bu cher bi et autres vraiment je pense que Macky Sall mi ngi doog a choisir profil bu baax pour premier ministre. dund bi métti na

élection présidentielle ndax moom Amadou Ba dina mën a dékku li nga xamante ne mooy euh, yenn bi. ci fanweer ak juróom-ñetti ministre yi nga xamante ne daal dinañ leen tabb ni ki démb am na ci ñoo xamante ne ñoom dañoo dellu siwaat ci gouvernement bi ndax nekkoon nañ fii ku ci mel ni Ismaïla Madior Fall moom nag euh, la ñu daal di tabb yees mu nekk ministre de la justice muy post boo xamante ne atum 2017 jiite woon na ko moom nag li nga xamante ne moom mooy ñëwaatam ci bile post ci jamono ji nga xamante ne ñu ngi lam-laamee ñetteeli mandat njiitu réew mi deful rek lu dul rek euh, njiitu réew mi euh, moom euh, li mu bëgg mooy euh, gën a dëgëral toogaayam su ko defee nag ñu mën a xam bu baax fan la jëm ak li nga xamante ne moom la ñuy rumbandaat boobaak léegi muy ñetteeli mandat bi ñetteeli candidature gi nga xamante ne kon ñu ngi koy waxtaanee léegi bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi professeur Moussa Diaw di enseignant chercheur science politique ca université Gaston Berger bu Saint-Louis ñu teewloo ko kook Baye Omar Gueye c'est vrai que am na ñu dellu si euh, ci ci gouvernement bi ñu xam ni demoon nañu comme Ismaïla Madior Madior Fall mu nekkoon ci mu nekkoon mu nekkoon conseil spécial léegi dellu si justice euh, am na ñu dellu si Aly Ngouille Ndiaye moom nañu dellu si ci agriculture c'est vrai que ñu am expérience la ñu euh, surtout l'agriculture agriculture moom xam na ko waaye xam xam ko rek doyul il faut que nga nekk nit ku nga xam ne jox nañ la moyen sas la dara nga mën ko réaliser loolu am am importance surtout ci période bi ñu nekk ni aw ñu am autosuffisance ci ci domaine riz bi wala parce que gis ñu ne dund bi céréales yëpp yooyu euh, ci guerre bu euh, Ukraine ak Russie euh, sonal nañu ñu xam ne pays ñu ngi dépendre dépendre ci ci ci ci produit yooyu waaw Moussa Diaw am na ay ay question yu ma la bëggoon laaj parce que dafa am ay waxuma sax doublon mais dafa am ay ministres yoo dañ ko ouvrir ak yeneen euh, nu mu tudda ci ministère par exemple le ministre de l'intérieur Antoine Félix Diome ministre de l'intérieur Birame Faye ministre auprès du ministre de l'intérieur yow ban compréhension nga ci am. waaw loolu loolu loolu dafa xaw jaaxle dafa xaw jaaxal. waaw ministre ba nga xam ne dépend na ci beneen ministre. bu fekkoon sax secrétaire d'État la. man nañ mën nañu comprendre comprendre waaw waaw mën nañ comprendre waaye lii ay doublon la ki ma mm-hmm. waroon nañu changer dénomination bi wax ni mm-hmm. euh, secrétaire d'État la auprès du ministre de l'intérieur chargé mm-hmm. de la sécurité wala leneen waaye nag loolu stratégie la parce que euh, faut pas que ñu fàtte ni euh, discours du président bi am na ni am na lu ma waxoon dafay dafay restaurer l'autorité de l'État loolu nag am na lu mu signifié loolu nag mun nañ ko rattaché ci lu incident yi amoon foofu ci assemblée euh, donc ça veut que ni war nañu def attention ci loolu ci euh, doublon boobu parce que c'est volontaire ñuy def doublon boobu ci ci secteur boobu. Euh, je pense que waroon nañu am explication. boo xamante ne nit yi mën a comprendre la à quoi ça obéit réellement. voilà voilà tax ñu def lu tax ñu def. lu tax ñu def ko ak lan lañ ci jublu. oui waaw lan ci jublu waaye expliqué wuñ ko am ni. tension bu am bi tension politique rapport de force bu am bi euh, mën nañ mën nañu mën nañu comprendre vite la tax ñu def loolu waaye nag euh, dal dafa baax euh, usage de la force. du mm. loolu mooy régler mm. problème bi. Mm. Sud FM. ñaar fukk ak ci ay nit daal di nañu ñàkk seen bakkan ci yoonu Touba bi euh, juróom-ñaar téeméer ak lii di ñaar fukk ak juróom-benn yeneen ñu daal di amee ay gaañu gaañu ci ay l'accident yoo xamante ne euh, ci yoonu Touba yi nag ci yoonu Touba lañ ko daal di euh, kon ci la daal di am diggante samedi jàpp samedi 10 jàpp vendredi 16 septembre bu ñu sukkandikoo ci brigade nationale des sapeurs pompiers ba tey bu ñu sukkandikoo ci porte parole. école euh, bu brigade nationale des sapeurs pompiers euh, juróom ñeent ci ay nit yi nga xamante ne faatu nañu euh, kon ñoom ci l'accident yu moto Jakarta ci nag la ñu daal di ñàkkee seen bakkan ci fàttali nag at bi ñu weesu di deux mille vingt ci màggal bi nag accident yi nag lii di fukki nit ñoo ci ñàkkoon seen bakkan juróom-ñaar téeméer yi ak juróom-ñaar fukk ak juróom daal ci amee ay ay gaañu gaañu li nag xibaar la euh, bi nga xamante ne waa brigade nationale des sapeurs euh, ñoo ñu ko euh, baaxee ñu jëm ci wàllum njàng meek njàngale mi ubbi tey grève tey loolee moom mooy slogan bu bees bi nga xamante ne. syndicat bi ëmb jàngalekat yi yëngu ci wàllum EPS di euh, tàggat yaram bi ci école bi ñoom ñoo ko daal di euh, kon lancé euh, ñoom nag CNEPS nee nañu boo moyuwul daañu xajamal lii di rentrée scolaire bi ndax gouvernement bi ba tey defu li nga xamante ne moom mooy seen bëgg-bëgg ak itamit li nga xamante ne moom la xaatimoon ak ñoom kii di xalifa Ababacar Ndiaye di secretaire général bu association nationale des enseignants de éducation physique moom la ñuy daal di teewlu ci micro wu euh, Mame Diarra Da Silva dama yëkkati sama kàddu ci turu maître éducation physique maître éducation physique nag dañuy fàttali sénégalais yi ñuy déglu que ni ñoom ñi ngi toogoon di xaar ñaar fukki at ak ñett que ñu reversé leen dans le corps des PSMG jëlee leen ci hiérarchie B4 yóbbu leen hiérarchie b ginnaaw bi loolu nekkee xaatim boo xamante ne nguuru Sénégal xaatimoon na ko ak syndicat yi am na ñaar fukki at ak ñett te nekk ci protocole d'accord yi fi jaar yëpp bu 2012 2014 ba bu 2018 leer na ci bopp ñëpp que ni dañ leen waroon jëlee ci hiérarchie bu leen hiérarchie B2 al nag tey ba yëkkati suñu kàddu mooy ba Mariama Sarr signé décret de reversement bi dañoo gis ne ñun dañu ñu ne da ngeen di dellu waat formation 14 mois pour dellu si di jàngale la ngeen doon jàngale loolu nag lañ ne xel mënu ko daj tey mënu ko daj suba ba tax na incha allah ci ubbite école bii ñu jëm dañoo fas yéene banque suñuy loxo ci lépp lu jëm ci sport scolaire banque suñuy loxo ci lépp lu jëm ci interclasse ak inter établissement banque suñuy loxo ci lépp lu jëm ci cellule pédagogique daal di taxawal nag slogan ubbi tey grève tey ndax wax dëgg yàlla ñaar fukki at ak ku ko toog de xaar ci loo xamante ne guur gi moo ko waxoon wax waxet daf fi sax daal di xajul te loolu nekkul luy militer à ce que jàng beeg jàngale bi daal di normal loolu nag dafa nekk rek ndorteel ci suñu mouvement d'humeur ndax xam nañ ne ñi ngi jëm ci ay waxtaan jëmale ko ci kilifa yi ŋànk jàng beeg jàngale bi muy ministre de l'éducation ak ministre des sports et bu fa saafara judduwul nag ñu daal di jàll ci beneen pexe waaye li wér mooy incha allah ñi ngi ci taxaw ci ubbi tey grève tey ubbi tey grève tey moom nag la euh, jàngalekat yi yëngu ci wàllum EPS bi euh, fas yéene amal euh, bu gouvernement bi doxul ci seeni bëgg-bëgg kon xabaar yi ñaar fukki simili moo bootu ci juróom-ñaari waxtu ci suba fii lañu ñu yem waaye laata nag ñu ti jotaay bi dañ leen di fàttali li ci gënoon a fas bokk na ci Sénégal mi am gouvernement bu bees gouvernement boobee nag ni ki démb lañ ko daal di tabb fanweer ak juróom-ñett ci ay ministre ñoom ñoo ci daal di nekk ñu mun cee lim juróom-ñaari juróom-ñetti jigéen ak juróom-ñetti ndaw ñoom dégg nañu li nga xamante ne moom mooy seen parcours ak ki nga xamante ne moom mooy Aïssatou Gueye Ba gouvernement bi nag du am temps wu noppalu ndax liggéey moo leen tax a jóg te eh, daar daar faw ñu am ay chantier yoo xamante ne nañ koo attaqué muy euh, euh, kaddu yi nga xamante ne euh, kii di premier ministre bu yees bi daal dina ko yëkkati di amadu Ba dégg nañ ko ci biir xabaar yi jamono joojee nag ubbi tey grève tey moom nag boo moytuwul daañu ko am fii ci suñu biir réew ni ki kon weeru octobre bi ñu dëgmal ndax ñi nga xamante ne Euh, ñoom ñooy seen euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, jàngalekat yi nekk ci wàllum éducation physique ak sportive nag nee nañu gouvernement bi deful li nga xamante ne moom la waxante woon ak ñoom boobaak léegi moo tax nag boo mooywul daañu xajamal li nga xamante ne moom mooy ubbite l'école yi kon xabaar yi fii la ñuy yem kii di Abdoulaye Diop dina dikk léegi si kanam fii la ki simili ngir rek ñaareelu pàccu sud matin man bu 8 heures jotee dinaa fi dellu siwaat

ont un niveau de, de, de compréhension de la gestion étatique qui peuvent leur permettre d'aller très très vite. Ce gouvernement compte 38 euh, personnes, 38 euh, euh, ministres, et vous verrez la nouveauté qu'il y a des ministres auprès d'autres ministres. Et cela traduit aussi les orientations du président la République. Se déléguer auprès du ministre de l'assainissement, chargé de l'assainissement, pour s'occuper des inondations et de la prévention de ces inondations. Il s'agira d'un secteur extrêmement important que le gouvernement devra adresser dans les prochains jours. Un, un, un ministère euh, au, de, des Sénégalais de l'extérieur, où on a mis une femme qui est connue, qui est engagée et qui est très brave. Au total, on a huit femmes dans le gouvernement. On a aussi huit jeunes, mais des hommes et des femmes d'expérience. Vous verrez une femme au ministère de l'économie, c'est une première dans notre pays, qui va s'occuper de l'économie, de la coopération euh, internationale et du plan. Et cette femme va travailler en binôme avec les ministre chargé des Finances et du Budget. Au total, il s'agira d'un gouvernement de combat. Il s'agira d'un gouvernement immédiatement opérationnel, mais surtout d'un gouvernement de terrain, c'est-à-dire proche des préoccupations des populations. Une nouvelle composition du gouvernement avec de nouvelles têtes fervents défenseurs de l'Alliance pour la République lors des dernières élections locales et législatives. Euh, quels sont leurs parcours et leurs profils? Éléments de réponse avec Aïssatou Gaïba. Le nouveau gouvernement est composé de 38 ministres, dont 8 femmes, mais surtout un remaniement avec une nouveauté. Le chef de l'État a choisi de nouveaux profils pour une efficacité optimale, a déclaré le Premier ministre Amadouba. Parmi les nominations, Oulimata Sarr devient ministre d'économie, du plan de la coopération. Elle fut la directrice régionale du bureau d'ONU Femmes à Dakar, entité mandatée par l'ONU pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. agissant en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Parmi les nominations toujours, Dr Annette Sekindiaï devient ministre auprès des ministères des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Elle était la directrice nationale de la pharmacie nationale d'approvisionnement, Dr Fatou Diané, devient ministre de la femme, de la famille, de la protection des enfants. Fatou Diané fut la coordinatrice nationale du Promise, programme de développement de la microfinance islamique au Sénégal depuis mars 2021. Pape Malik Nour, ministre de la Jeunesse, de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi, est un militant de l'Alliance pour la République depuis 2008. Sur le plan politique, Pape Malik Nour a été coordinateur national adjoint et porte-parole la coordination des jeunesses républicaines Cogère. Béram Faye, quant à lui, il est nommé ministre auprès du ministre de l'Intérieur sécurité de et de protection civile. Il était auparavant le directeur général de l'agence d'assistance à la sécurité de prix installée. Il a pris fonction depuis le 13 mai 2019. Quant au nouveau ministre de la fonction publique nommé Galoba, il est un responsable apériste, maire de Mbaké, directeur général de la SOGIP. Parmi les nouvelles nominations, un journaliste et analyste politique. Le journaliste politologue est pourtant connu pour ses positions de principe, ses analyses pas très souvent en faveur des actes posés par le chef de l'État Macky Il s'agit de Yoroja nommé ministre porte-parole et coordonnateur de la communication à la présidence de la République. Euh, quant à la dernière nomination, Yankoba Issa Diop, il se nomme nouveau profil, il est ministre auprès du ministre de l'eau et de l'assainissement chargé de la prévention des inondations. L'homme reste très peu connu du public. Amadou Ba nouveau premier ministre qui succède respectivement à sa poste à Abdoul Mbaye Aminata Touré et Boun Abdallah Dionne responsable à l'APR a été ancien ministre de l'économie et des finances à deux reprises avant d'occuper le poste de ministre des affaires étrangères Khady Sène nous dresse son portrait À 61 ans, l'économiste Amadou Ba devient Premier ministre du Sénégal après six ans passés à la tête ministère de l'Économie et des Finances de 2013 à 2019 et un an au ministère des Affaires étrangères entre 2019 et 2020. Un parcours très riche en économie, Amadou a décroché une maîtrise en sciences économiques, option gestion des entreprises et un brevet de l'ENAM en 1998. Il a occupé plusieurs postes à la Direction générale des impôts et des domaines avant d'être le directeur général en 2006. Sous sa direction est mis en œuvre un nouveau code général des impôts entré en vigueur en 2013. C'est sous son magistère au ministère de l'Économie qu'il a dirigé la délégation du Sénégal à Paris pour vendre le plan Sénégal émergent et trouver des investissements pour les différents projets. membre de l'APR, responsable du parti aux Parcelles Assainies, Amadouba n'a pas été investi lors des élections locales. Il a été écarté au profit de Diouf Sarr, même scénario lors des législatives où à Dakar, ce sont les alliés de Benno qui ont été investis. Malgré tout cela, il est resté mobilisé et engagé, fidèle au président Il se retrouve aujourd'hui à la tête du gouvernement. L'économiste arrive dans un contexte économique chargé, marqué par l'inflation. Il devra relever ces défis clairement identifiés par le chef de l'État comme étant l'une des priorités de l'heure. Et Hadisen, malgré tout, certains Sénégalais rencontrés par notre reporter approuvent ce choix et estiment que c'est le bon profil pour diriger le gouvernement. Nous les écoutons dans ce reportage signé à Maria Madjara. Amadouba, le nouveau Premier ministre du Sénégal, un choix de profil qui apparemment rassure. Voici quelques réactions des Sénégalais. Pour euh, la nomination de Monsieur donc je trouve que c'est le bon profil qu'il nous fallait. Voilà, fait, Amadouba, il a eu à faire ses preuves. Je pense qu'il sera à la hauteur euh, des attentes des Sénégalais. Voilà. Pourra-t-il relever les défis d'ici aux élections euh, le profil parfait que Max Sall euh, devait nous proposer afin

Merci Adja Mariama Diarra et parmi les retours dans ce nouveau gouvernement, Ismaïla Madior le ministre de la Justice, un poste qu'il a d'ailleurs occupé en 2017. Euh, sa nomination intervient alors du mandat de Macky sal euh, se pose avec acuité pour le professeur Moussa Diaw. Le retour de ce dernier obéit à une logique de défendre la position du chef de l'État concernant une éventuelle candidature. Le professeur enseignant-chercheur en sciences politiques à l'UGB avec Oui, on se demande, est-ce que on n'est pas dans une logique de troisième mandat, puisque mm. euh, son avis semblait être changé. Il, il semblait, euh, il parlait de, de, principe, en principe, euh, le président ne peut pas faire un, un troisième mandat, alors qu'au début il était, euh, euh, radical sur le fait qu'il y a un verrouillage. On ne peut pas, faire troisième mandat. Il y a deux mandats et la, la Constitution est claire là-dessus. Euh, bon, maintenant, euh, son retour euh, euh pour faire quoi euh, Est-ce que ce n'est pas dans une logique de défendre la position du président de la République qui va peut-être l'annoncer plus tard euh, Et on sait bien tout le dispositif qui est déjà institutionnel, le Conseil constitutionnel qui a un nouveau président et qui est dans cette logique de soutien du président de la République. et puis avec euh, le retour d'Ismaël, est-ce que ce n'est pas là euh, tout un dispositif euh, juridique installé euh, pour, euh, pour valider euh, un troisième mandat Mais on n'est pas encore là. on attend de toute façon que cela soit bien précisé. Mais dans tous les cas, il n'y a pas beaucoup de changements. C'est-à-dire, il n'y a pas un bouleversement et il n'y a pas eu de nouveauté. Et on pensait d'ailleurs un gouvernement resserré, mais tel n'a pas été le cas. Et euh, on nous dit que c'est un gouvernement, comme je disais tout à l'heure, euh, de combat, de combat peut-être contre euh, contre euh, l'adversité, c'est-à-dire euh, les inondations ou contre euh, contre un certain nombre de, de problèmes qui se posent au pouvoir d'achat, etc. mais en tout cas, il faudra voir ce que ça va produire Et puis du niveau ministère de l'Intérieur, on a adjoint euh, un ministre qui sera chargé euh, certainement de la sécurité, qui c'est celui qui a formé, il a des responsabilités sur la formation des AFP et euh, son rôle aussi euh, dans ce qui s'est passé, dans la formation de, certains agents de, sécurité. Donc il faut voir à quelle fin ce, ce doublement de fonctions autour ministère de, ministère de l'Intérieur. Ce nouveau gouvernement, avec seulement donc huit femmes, soit un taux de représentativité de 21%, insuffisant selon Safiet Diop du réseau Sigil Jigen, qui trouve, malgré les promesses du chef de l'État, qu'il reste beaucoup à faire dans la responsabilisation euh, des euh, femmes dans les postes de décision. Safiet Diop, présidente du réseau Sigil Jigen, joint par Bayo Marguerite. Nous avons dans ce gouvernement, mmh. Ça veut dire que nous n'avons pas progressé du point de vue vraiment de euh, euh, euh notre représentation en termes de valeur absolue. Et euh, ce que, tout ce que nous avons fait, depuis vraiment euh, l'installation de, de, de, de, Monsieur le Président de la République et surtout après sa nomination, après son élection à la tête de l'Union africaine. on pensait que les femmes euh, sénégalaises et les femmes africaines allaient véritablement faire un pas en avant. Mais ce que nous constatons, c'est que malgré vraiment ses euh, promesses et sa volonté affichée, vraiment nous restons encore et nous marquons le pas du point de vue de la responsabilisation dans les postes de décision. Et c'est regrettable parce que les femmes sénégalaises méritaient vraiment d'avancer un peu. On nous a mis dos à dos avec la jeunesse, huit jeunes, huit femmes. Certes, euh, c'est très bien de faire la promotion de la jeunesse, mais les femmes aussi véritablement méritaient d'avancer, ne serait que pour atteindre les 30% dans ce nouveau gouvernement, parce que quand même nous avons euh, montré notre capacité et notre volonté de faire changer les choses. Est-ce qu'il n'est pas venu l'heure, justement, pour les femmes de prendre elles-mêmes leur propre initiative et de savoir que rien ne se donne, tout doit, devrait être justement arraché et de, de changer de paradigme aujourd'hui pour les femmes sénégalaises Bah Omar, ça c'est une certitude maintenant. qu'on le veuille ou non. Oui. Euh, c'est Simone de Beauvoir qui disait que le pouvoir ne se donne pas, il s'acquiert. Mais Nous devons prendre notre destin à main, il faut que les femmes sénégalaises, osent s'affirmer, euh, franchissent le Rubicon et véritablement rentrent en politique et pour faire la différence. Mais cela ne suffit pas. Il nous faut aussi une solidarité sororisante Changement à la tête du ministère du Commerce, Abdou Karim Fofana dépose ses valises. il euh, remplace Aminata Assome Diatta. Les consuméristes fondent beaucoup d'espoir en ce nouveau ministre qui devra beaucoup s'investir pour faire face à la vie chère et devra donc travailler en étroite collaboration avec les différents acteurs parce que les attentes sont nombreuses. C'est ce que nous dit Mohamed Sissé, vice-président d'Alaskosen, joint par Ndeye Marième Ndiaye. Euh, le ministère du Commerce doit être normalement doté de moyens humains et logistiques. Et comme à l'image des ASP, nous avons toujours prôné les volontaires de la consommation qui peuvent rendre dissuasifs certains commerçants véreux. L'État a beaucoup, donné, par exemple sur le plan fiscal, sur le plan droit de douane, mais le consommateur n'en a pas reçu. Donc ça a été capté par des commerçants. Maintenant, il va falloir qu'on s'asseye et que le ministère du commerce travaille avec les associations, en étroite collaboration de consommateurs. Après avoir doté de moyens le ministère du commerce pour le contrôle sur le terrain soit effectif. Il va falloir qu'on élargisse la gamme des produits qui doivent être encadrés. Parce que ce qui fatigue les pauvres gourgoules, c'est les produits qui ne sont pas encadrés. Je vous donne un exemple. Entrez dans une boutique, demandez une part d'entreprise, il vous dira 800 francs. Revenez 10 minutes après, vous trouvez un autre boutiquier dans la boutique, il vous le rend à francs. Et c'est le même stock. Et ces produits-là sont divers. Donc il va falloir que le nouveau ministre du Commerce s'attelle sur ça. Et pour les produits locaux, en période de forte consommation, entrée. Je pense que il va falloir qu'on puisse protéger le consommateur sénégalais. pour les produits importés, l'encadrement ne tient plus parce que ces marchés-là sont volatiles. Cependant, il va falloir qu'on encadre les marges bénéficiaires. Je pense que ceci est important. Le chantier est énorme et nous demandons à ce que, franchement, le ministère du Commerce soit doté de moyens de sa politique.

Angleterre, Chelsea, Liverpool, le match est reporté, de même que Manchester United et Leeds. À 11h, Brentford accueille Arsenal et à 13 h Euh, Everton, West Ham en, en, Espagne. On joue également à partir de midi avec Osasuna Getafe à 14h15, Villarreal Séville à, 16h30, Real Betis Girona et à 19h Madrid euh, Real de Madrid. Ce sera le euh, derby à 10 h minutes en Italie, Udinese Inter de Milan à 13h Fiorentina et Las Verona. Monza accueille Juventus de Turin à 20h45, 18h45, euh, le choc entre le AC Milan et Napoli en Allemagne pour euh, terminer avec euh, à, à 13h30 Union Berlin-Wolfsburg. Bochum accueille euh, Cologne, ce à 15h30 et à 17h30 Offenham accueille Fribourg. Il est 7h47 minutes. Accueillons Marie-Rosaline Ndiaye, c'est pour la rétrospective des faits de l'actualité de la semaine. Bonjour et bienvenue, vous suivez la rétrospective des faits saillants de la semaine sur Sud FM Zen Radio. donc une adresse à la nation vendredi soir, le chef de l'État a annoncé la mise en place d'un nouveau gouvernement dont les priorités vont reposer sur l'amélioration des conditions de vie des Sénégalais. Macky Sall a auparavant regretté les incidents qui ont ponctué l'élection du président et du bureau de l'Assemblée nationale. Je regrette profondément les incidents survenus à l'occasion de l'élection du bureau de l'Assemblée nationale. Le spectacle désolant auquel certains dans l'enceinte de la représentation nationale, en détruisant du matériel et en violant la sacralité des lieux, foulant ainsi aux pieds les dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et d'une extrême gravité, indigne d'une démocratie majeure et indigne de la confiance du peuple. Mon souci, de tout faire pour rendre le quotidien plus supportable pour tous. Dans cette optique, Nous avons en perspective de larges concertations avec toutes les parties prenantes, notamment les associations de consommateurs, les commerçants et tous les acteurs pour arrêter de nouvelles mesures. Ce sera une des tâches prioritaires du nouveau gouvernement que je m'apprête

mais on va on va patienter certainement après la publication du du gouvernement. Euh, je considère que c'est sa prochaine tâche lorsqu'il s'adressera à la nation. Samedi à 13h, Amadou a été nommé Premier ministre. L'ancien ministre de l'Économie et des Finances et ancien ministre des Affaires étrangères a décliné les priorités majeures fixées par le chef de l'État. Depuis plusieurs années D'abord en tant que directeur général des impôts, puis ministre de l'économie et des finances, ministre de l'économie, des finances et du plan, ministre des Affaires étrangères et des Sénégal de l'extérieur, le président de la République a toujours eu confiance en moi et n'a cessé de me signifier, de magnifier cette confiance. Je voudrais l'en remercier très sincèrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, et prier le bon Dieu qu'il m'aide, avec le gouvernement qu'il mettra en place, à pouvoir mettre en œuvre sa vision avec succès. Les priorités majeures que le président a fixées se déclinent à travers l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages, il en a longuement parlé hier, de la stabilité des prix, de sécurité, de logement, d'assainissement, d'éducation, de formation professionnelle, d'insertion, d'entrepreneuriat et d'emploi. Tout ceci dans un état de droit. Vous comprendrez qu'il s'agit principalement des axes 2 et 3 du plan Sénégal émergent. La vision du président qui

pour permettre aux de la coalition Benno Bokk Yaakaar de voter. Au finish, 84 voix, 83 pour et le voilà élu président de l'Assemblée nationale. Oh du jamais vu dans en ring politique avec des forces de l'ordre des Bérets Bleus et Treillis qui ont chassé les écharpes vert, jaune, rouge des députés de l'opposition acculés, bousculés et même violentés. Le vote n'a pas été du tout de tout repos pour ces députés. Du mobilier de l'Assemblée nationale cassé, une urne qu'on a dû ouvrir au tournevis, des scènes inédites qui ont frisé parfois le ridicule ont eu lieu à l'hémicycle. Une situation très décriée par bon nombre de députés et de citoyens qui se sont plaints du comportement peu responsable de certains députés. Tout compte fait, Amadou Mamdiop, élu président de l'Assemblée nationale, n'a pas pu installer le bureau qui le sera ce mardi. Le lendemain mardi, le bureau de l'Assemblée nationale a été installé. Quelques incidents ont émaillé le vote. Le scrutin a d'ailleurs été interrompu pendant plusieurs minutes car Farbangom avait encore brandi la procuration pour voter au nom de Aminata Touré, ce que les membres de l'opposition ont refusé catégoriquement Babacarson. Des incidents qui ont encore émaillé la séance plénière de ce mardi, interrompue pendant plus d'une vingtaine de minutes. les membres de l'opposition qui ont envahi l'urne pour empêcher Farba Ngom de voter au nom de Mimi Touré, brandissant la fameuse procuration. Les députés de l'opposition disent niet. la situation devient de plus en plus tendue. Des échanges de mots entre parlementaires. Dans la foulée, Guy Marius Sagna met la main sur l'urne et l'emporte. Des médiations s'en Le vote reprend enfin.

Madame Yeta Sow. Cinquième vice-président, Monsieur Modou Bara Gaye. Sixième vice-président, Mamfatou Gueye. Septième vice-président, Monsieur Momodou Lamine Gallo. Huitième vice-président, Madame Nima Boudjadi. Je félicite nos collègues et leur souhaite plein succès dans leurs nouvelles fonctions. Les secrétaires élus sont également choisis par les parlementaires à l'issue d'un scrutin. La coalition Benno Bokk Yakaar obtient trois secrétaires élus dont Ndeye Lucie Cissé, Karim Sène et Astou Ndiaye. Babacar est le quatrième secrétaire élu. Il est de Yewwi Askan Wi, de même qu'Awa Diène. Et le sixième poste revient à Abdoulaye Diop du groupe parlementaire Liberté et Changement. de la coalition Wallou Sénégal. Et Daouda Dia reprend son poste de premier questeur, son adjointe et Aïcha Touré du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi. Le Grand Magal de Touba a été célébré le jeudi 15 septembre. L'événement a réuni des millions de fidèles qui ont fait le déplacement pour commémorer le départ en exil du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké. C'est tout pour la rétrospective des faits qui ont marqué l'actualité de cette semaine sur Sud FM Sen Radio. Merci de l'avoir suivi. et rendez-vous dans une semaine. Marie-Rosalie merci. C'est la fin de ce journal. Il vous a été présenté par Abdoulaye Diop. Merci à Sanchoun pour l'appui technique. Merci également à vous pour l'heure attentive. Dans moins de minutes, Odile euh, pour la version coach de cette édition. Excellent réveil et bonne journée à toutes et à tous.